marhaban déwénati. macha allah. fekkel déwén. shukran. yàlla nañu yàlla may ñu fekk koy at. Hmm. balaa déwén ci heure bii. Hmm. ñu naan at bul tegal bunt bi. waaw. parce que loolu buntu beeg lépp suba xale dañoo war a jàng ak lépp war naa mën a ne ci àdduna dëgg la ndax bi moom tout possible lépp mën a ne dëgg la waaw yàlla ñëpp la fi nekkal dëgg la man ñoo ko fi nekkal ñu nekkal la suñu lépp mën a ne ñaanal ma rek incha allah su ma génnee ci situation yi ma ne rek dëgg la daal di fat waaw cholestérol cholestérol tey deuxième bi war ah, euh, wax dëgg yàlla ah. euh, euh, gëju fi nag yàgg na damaa ubbi sama bataan rek mu daanu mën na ko yaay def. boo yee daan ndox dafay yàgg. mais tout balaa de. Eh, balaa bu yàgg nga def tey yi. courant balaa nag lañ ko fóot bëriwul de piscine la jógee rek. kii fóot nañ ko ñaata yoon. Hmm? daa bi de bële la woon. mu nekk vert. kaama wax de àdduna laa ko moom. damaa wàcce sama bopp rek loolu gàtt gàtt mosuma ak ñoom. wax dëgg la damaa wàcce sama bopp rek waxtaan ak. Sénégalais yi waxtaan ak jeunesse bi. gis nga xam nga ni ma toogee nii. xam nga am naa am naa maana. wallaahi de macha allah sof naa maana. mel sa korite leer na. ah lu loolu. ah korite xam nga ne maanaam. bu ñëwoon suba jekk nga. non maanaam tey rek bu ma xëddee ba pare mun naa ko rek. te nag nag ñun ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a woor nag ñun ñu njëkk a woor moom xam naa ne moom suba insha allahu rabbi dañu koy ndékki añ maanaam xa doo ko reer jërëjëf shukran Fadam